bismillahi rahmaani rahim kon ñu ñëw ci nettali ñaar ak ñeent fukk ak juróom na ku ma sa wax Sëriñ Tuubaa xaada la wala wu bëgg nga dimbale ma mel ni Ibra Faal sëriñ bi ni ko faat na yéen ñi fi nekk ñu leen di wax ay murid saadix kenn ku ci bi ngay dikk dangaa def sa bopp ñeenti xaaj benn xaaj bi nga sédde ko sa bopp benn xaaj bi nga séddee ko say mbokk benn xaaj bi nga séddee ko sa borom benn xaaj bi nga jox ma ko Ibra Faal bi mu dikkee ñeenti xaaj yépp la ma jox boroomam mi ko bind la njëkk a bàyyi wér na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar loxo bi mu nekkee di waaj di mu géej gi mas naa wax waaye juru Sëriñ Basiiru radiallahu taala anu daa mel ni danga amuk jaaxle mu ni ko lool sering bi ni ko du dara loli nga andal bobu serigne aduna, gënewul aduna mun ko loli nga andal diisoo na maag mom lu mat fukki at ak juróom ci sama dem gi delusi, na ma da nga dem da nga delu fi wér serigne bi dana wax ak roy bu wer ñi faatu ak ñi dekkagul wala alam sering tu xaadala wala mu lahoo mas masna wax serigne basiiru radiyallahu taala anu sama yoon wi ab tabax la yaay ki koy tabax dénk naa la ko bu ci dara yàqu wér na sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo mas naa wax sëriñ Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Bachiru radiallahu taala anhuma dama bëgg ngeen ànd te taxawu yoon wi siiw na Cheikh Ibrahima Sarr radiallahu taala anhu bi mu faatoo sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo daa wax ni nañu ko yóbbu Tuubaa mel ni daa am ñu bëgg ñu denc ko njaareem sëriñ bi wax ni nañu ko yóbbu Touba Touba ak njaareem ñooyam képp waaye Ibra Sarr Touba la war a dem am na ñoo xam ni su fekkoon Touba gën ci ñoom duma leen suul fii ma baabu ak siré radiallahu taala anhuma waaye Ibra Sarr Touba la war a dem na lool ñu ci njàngaleem sëriñ Touba xaadalawo law maxtaara lawo ci ñaar téeméer bi ak juróom fukk bi ak ñaar Sëriñ Tuuba xaada la laaw maxtaar la bi muy nekk njaareem daana def bu ñu reeree ba noppi mu woo ay doomam yu jigéen radiallahu taala anhunna yóbbu leen fi bërëb ñuy jàng xasaa it am kuy debe ñu ci des di aw bu ñu jàngee ba mu guddi mu andil leen kafe wala attaaya xelli leen waxtaanal leen ñaanal leen am na bis mu andi leen kafe ba ñu naanee ba noppi mu ni leen xam ngeen li ma defal ci kafe warga attaaya ñu ni ko déedéet Sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaaloo ni ni ma leen ko misaale mi ngi mel ni ñett ñu am seeni jàngoro jàngoro mooy tawat kenn ki jàngoroom ji yaakaar na ni jàngoro doktoor rekk la jarul muy wut sunguf ak reen jërul muy wut saafara baye boo mu wut docteur bu dee faju foofa lay fajoo kenn ki jàngoroom ji yaakaar na ni jàngoroy saafara la jërul muy wut docteur jërul muy wut sunguf ak reen baye boo mu wut saafara bu dee faju foofa lay fajoo kenn ki jàngoroy sunguf ak reen la jërul muy wut docteur jërul muy wut saafara baye boo mu wut sungu fag reen bu dee faju foofa lay fajoo waaye man li ëpp ci sama saafara saabarom dama ko defal ci kafeeg warga wér na mel na ni baatub attaaya la ëppoon lu muy jëfandikoo ci warga wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo nee na xasidak waxaani xafiisun lu mu mënta def ci nit maamu dindi ko ci def ko ci wala dindi ko ci dana jafe siiw na wala wér na lool loolu moom li koy firndeel li mu wax ci biir ni day fekk bépp ñaawteef walaw alam Sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaloo mas naa gis xasaa id ak waxaa ci téere soxna xastu gaawaan radiallahu taala anu jàng ko ba noppi ni ko foo ko jële mu ni ko ci sama téere nday laa ko jële sëriñ bi ni ko bi ma nekkee ci liggéey bi yóbbuwoon nañu ma ci bërëb boo xam ni am naa fa ab diir am ñu ñu ma booleel ci jaamu yàlla lay xëy di ci gont di ci fanaan ñoom ñuy mooy yàlla di ci xëy di ci gont di ci fanaan am na bis yegg naa foo xam ni mënumaa wàcc suuf ci kaw kawlal bi ci lay jàppe ci laay jullee sunu boroom wax ma ni walla yax si mu ko mel naasi ma daal di tàmbali xasiide gii bi may agsi maharus li wal malaa gisatu gisatuma dara lu bokk ci ñoom wala gisatuma dara lu bokk ca loola mu doonoon mën naa am mu doonoon tawat wala leneen lu ko tere mën a wàcc lal ba xasida yépp nag am na ñu jeexit waaye gu ci ne ñu ngi gën a mën a jeexital ca la taxoon mu def ko wala walaw alam am na ci taalibe yi ku masa sol ay sagar romb Sëriñ Tuubaa xaadalewoo law maxtaaralowoo mu koy xool ba mu yàgg mu ne ko waa ji demal solu yére te bàyyi sa bëgg adduna gi siiw na loolu li muy tegtale mooy sëriñ bi da ko wax li xolam walla walaw alam sëriñ Tuubaa xaadala walaw maxtaar loo mas naa way ay way yu jëm ci mu Musaylamatul Kasaab bi ko sëriñ ma bànji xujja gisee daa wax sëriñ bi ni ko yaakaaroon naa ni sa xalima du yuut lu mel nii yuut mooy génne sëriñ bi ni ko wallahi Musaylamatu du xam sama teggini xarima xëy na muy xasiid ak man jaabil xasana alam tara anna allaha أغزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشيها سيطرده عبد الإله وجاره خديم رسول الله رسول الله طردا مصفها نحى نحوه نحوي بطرد مشيعا بتأيير ذي الهيزوم والكبر سفها سرين توبا خاد له لو مختار له نينا نخسى بوب moo raw paj siiw na paj mooy ku ñu liggéey ba tudde def dara wala alam am na ku ma sa wax sëriñ tuuba xaada la wala maxtaar damay def lu baax waaye daa mel ni dama jibul sëriñ bi ni ko jigadiwul kenn mi ngi mel ni ndab lu ñuy duy te naka noonu safaan ba jigul kenn tan wu siiw kon booy def ab safaan te gisoo dara itam mi ngi mel ni ndab lu ñuy duy ak lu bon bu tuuroo rek nga xam ni lii baaxul walaw alam sëriñ bay saar radiallahu taala anhu masna naa ànd ak sëriñ tuba xaadalaw la maxtaalawoo kër ko maa nang ba ñu àggee xaj ba wuti leen sëriñ mbay saar songoog moom ba mu yàgg mu jekku xaj ba ba mu ko bàyyee mu daw wuti boromam sëriñ mbay moom it daw laxasu ci tànk sëriñ bi di def mi xaj bi di def sëriñ bi ni ko mbay saar li ngay def lu mu mu ne ko xaj la may xaj te maa ko gën borom yal nañu yàlla taas ci barkeem wala alam waxtaan woo moom it siiw na ñu ngi ci nettalib ñaar téeméer bi ak juróom benn fukk mas na am ku takk ñaari jaar xaalis ñëw ci Sëriñ Tuubaa wala maxtaar mu ni ko lu tax takk ñaari jaaro yi te góor benn la war a takk mu ni ko benn bi day sab jaaro bi ki des jaaro maam Ceerno la sëriñ bi ni ko xoolal bu la ci neex nga takk ko te tekki bi ci des ba mu ko defee ba noppi sëriñ bi ni ko takk samab jaaro mbaa takk jaaro jaarob ceerno lu te ne njariñu lu ci ne jariñu nga ci jublu te man képp ku wuuteeg sunna si yonante bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa mënoo jariñu ci man mënoo jariñu ci ceerno siiw na am na soxna su masa xëy si sëriñ tuubaa xaada lëxoo lawo maxtaara lëxoo mu ni ko xabibu nu mu def ak biir ba mu ni ko yëgaguma ko mbàkke sëriñ bi ni ko demal seeti ko mu dem laaj ko mu ni ko yëgaguma dara mu ñëwaat sëriñ bi ni ko tawat jéem a tàggu waaye bu yegsee nañu ko wutal daakaanday werak werak garab la kuy sax ci sunu àll yi nañ ko wutal daakaanday werak ak miskit dëbb ko ba mu mokk mu di ko naan dana wér ca bis boobe la ko tawat ji dikkal siiw na wala loolu mooy gàttal gi mel na ni sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo daana moytuloo taalube yi di naan lu saf suukar bis bu set te doo ko booleek lu weex walla ngay naan lu weer wu nekk wala fukki fan ak juróom siiw na am naa sax ay waxin yu ma ci dégg waaye dama koy bañ a andi di soppi waxinu sëriñ bi wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawo law mas naa toog ba yoor yoor mu ni weer wi dana feeñ ñu ne ko weer wi kat feeñ na sëriñ Aafiyatu Ñaŋ radiallahu taala anhu gis na ko sëriñ bi ni xanaa du aafiya saa moom ñu ni ko waaw mu ni demal wool ñu daw woo ko mu ñëw sëriñ bi ni ko aafiyatu bu ngoonee weer wi na feeñ mu ni ko weer wi kat feeñ na mu ni ko teg teg nga ci sa bët mu ni ko waaw ba woor na sëriñ bi ni ko aafiya gaawal te raxas bët bi xaafe raxasal bët yi raxasal bët yi selmul mu daal di selmu sëriñ bi ni ko gaawal naan mu daal di naan sëriñ bi ni ko aafiya mu ni ko mbak sëriñ bi ko ko woor tey so xamuma ku la mën a yóbbu ajjana waaye du ahmadu mi xëy na daa bëgg a wax ku safaanoog moom ndax wa man xaalifa nii abada nun de mënunu ko loolu yi weer seytaane la nun xàmmee nañu weer ak ludul weer weer buy feeñ yàlla dama naan ahmadu weer bu ngoonee dana feeñ weer buy feeñ day ñëw ni ma dana feeñ weer buy xëy tàgguma buy feeñ tàgguma yàlla itam dana ma ko wax fekk na yàlla ci boppam tuuf na ma ba bët yi naqariwul xàmmee naa luy weer ak lu dul weer loolu seytaane la day fëkkaatu rek ñaari malaaka yi dikk nanu ŋàbb nañu buum gañu koy takke takk loxo ya ak tànk ya dikk ni weer day feeñ ginnaaw bi yàlla waxeeg man weer wi tàgguma yaari malaaka yi dikk nan ni ma dañuy jàppi seytaane weer wi day feeñ bu ngoonee dañuy takk tànk ya ak loxo ya daa di tàllal baaraam ba ni taax mu xongu mee taax mooy ab tabax xongu moom aw melo la ni taax mu xongu mee ci biir géej ga ci lañu koy daane taax ma taaxum weñ la dër ba weñ la bu fi ñaar lañ loo lañ loo nag xëy na mooy xuloo bu fi ñaar lañ loo nag ba mu xumb kookee di di ak dëgg seen diggante kooku nu mu tudd Sëriñ Isaa Jeen radiyallaahu taala ni ko bu fi ñaar xuloo ba xuloo ba metti dañuy dem ca buur mu àtti leen sëriñ bi ni ko ku mu jox tooñ ga nag kooku moom nu ñu koy def mu daal fab ay loxoom yóbbu ca gannaawam di ko xamal ni dañu ko yeew Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo reeni loolu laa leen doon waxkat ñooñu ñuy tudde buur dañoo mënta takki loxo malaayika rekk mën a takki loxo malaayika moom bub jaam tooñee boroomam ba sunu borom boole koog moom buy takk loxo ya day fab loxo ya dëpp ca dënn ba ñoddi mu fëll ca gannaaw ga mu boole tànke ak loxo ya takk ba mu wax ko mu def yéenu def yéenu aw tëddin la dënn ba féete suuf loxo yi dugg jët ca dënn ba wuti kaw daa di ree ni noonu la malaayka yi di takke ay loxo ñooñu ñoo mën a takki loxo te dana ñu def buum googu nga xam ni bu tubaab takkee loxo ba noppi moom la ciy def ba mu saalit saalit mooy maam maam tiit buum googu nu mu tudd sëriñ Isaa jenn radiyallaahu anhu ni ko ak ceen sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaar law yëkkati baaraamam mu jëm kaw mu ni hakaza kooku laa wax kooku wóorut ba noppi nag ñu naa ko yow xanaa danga wóorut mu naan wóoruma seetaane rekk ma tee woor tooñ na ko seytaan mi nekk ci ci tiis takk nañu loxo ya takk tànk ya fob loxo ya dëpp ca dënn ba ñoddi mu fëll ca gannaaw ga mu defeenu siis woowu kat bala caa jóge weer wa daa jeex weer wi génn ñu ni weer waa nga nee te muy dëgg ka takkoon loxo ya daa tekki loxo ya daa di roppi tànk ya tijji taaxma bi muy wax bi muy wax moom Sëriñ Tuubaa xaadalawo la taax mu xong mee ca géej ga lañu ko daan wax daa waxaale woon tubaab bu tëjee am taax ba noppi noonu mu koy def sëriñ Isaa Jenn radiyallaahu anhu ni ko kon naa ne sëriñ bi ne hakaza def nañu noonu seytaane bu weer wi feeñee ku wóorut bu weer wi feeñee ku wóorut sa bakkana seytaane yàqalul kenn ci weeru koor takk nañu loxo ya ak tànk ya dëpp loxo ca dënn ba mu fëlli ca gannaaw ga moom mi ngi ciw tiis te balaa jug te tiis wa weer wa daa feeñ dani foofee bu ñu ko tijjee ba weer wi feeñ ñu naa ma nga nee andusil nii seytaane wër na fi adduna yaari yoon xaat ba di ko yetteel daldi jooy daw jëm foofu fii féete kër Ibrahima Fall radiallahu taala anu nu mu tudd ñu ni ko nunka mu ree ni foofu la foofu lay fanaan daal wax ni weer wi nee dana feeñ kooku nga xam ni bu ma waxee ba noppi mu topp yoon wu gudd wi siiwal li ma wax na ko yëgle kooko daal di fas topp yoon wa di wax sëriñ bi ne ku baax ki ne boroom tey ak ëllëg ne bu ngoonee weer wi feeñ murit di dégg ngeen di wax loolu di dem ba mu yàgg mu soppi wax ja ba mu tolloo kër Cheikh Ibra Fall radiyallahu taala anhu ni sëriñ bi nee ne ñépp waaj ñëw këram seenu weer wi li muy sori sori sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar lawoo dégg na ko ni hoo hoo kookee day ma ngay dooli laa waxoon nañu ma ko dab mu del si ñu dab ko mu dikk sëriñ bi ni ko tàmbuleel foofee ma tàmbulee yam foofee ma yam ñun day ku yokk suñuy wax mbaa nga wàññi ko bu xurwu tàng wa sa wara lay wax boo ca dëkkul danga ca am ñetti noor ak seeni nawet tàmbulee leen fii ma tàmbulee yam fii ma yam moo gën de neewuma nañu ñëw ci man neewuma nañu ñëw sama kër bu jënd fee fu mu fekkub jaam warangikul warangiku mooy wëlbatikul xool saw weer wi dana feeñ loolu laa wax de mu daal di wàññeeku di wax li sëriñ bi wax wér na lool su ko defee waxtaan wi andi woon naa ko waaye bii moo gën a mat ci yenn anam am na yitam lu ma ci andiwul te mooy Cheikh Ibra Fall radiyallahu taanu bi mu dig bi mu déggee lii li mu wax loole itam dadul waxi sëriñ bi moo tax waaye bu ma agsee ci Serigne Touba xaadalaw la maxtaaloo ca timis la mu ko wax andi naa ko ci waneen waxtaan lu mel ni nag moo tax di topp téere yépp am solo moo lay leeralal lu bari walaw alam mas naa am ku yanu ay bagaan mooy ay ndab lu rëy ñëw ci Serigne Touba xaadaloo law ma wax mu wax ñaar ñu fa nekkoon ñu yenni ko mu ni ko tànq ci te fexe ku nekk mus ci daa yaru yare yombul gis ko def jar na sol daldi weñ di daw ba mu dammutoo nga jox ko loxo wér na lool ñu ñëw ci njàngaleem sëñ bi ci ñaar téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaara loxo bi mu jugee ci tukki bi daa ànd ak maam Ceerno radiallahu taala anhu di xool yi mu fi yi ba agsi ci baraada boo xam ni desu warga moo ca nekk mu laaj ko mu ni ko yaa ci doon warga ca bis sàngam di ko leeral ba sëriñ bi ni ko fàttaliku naa ko waaye bu doon yaa ko bàyyee foogu ma ni danaa ko mane nii li ma la ci faye mooy bu ni demoon ba sama barke jeex ci kaw suuf ba ñaar rekk dese ko kenn ka ci yow lay bokk siiw na sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahu maxtaara lahoo nee na assaalihu ci maaska lonk ak assaaliha ci maska yat ci kaw li leen wutale mooy assaalihu lépp lu mu bëgg ci boroomam bala mu ko am faww ci coono la koy ame dana tuur deret dana sol sonn lool waaye dana ko am assaaliha nag loolu lépp du ci jaar day toog fi mu toog sunu boroom di yéwénal ay mbiram ba lépp sotti yàlla na ñu kon wér na lool moom nettali Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo nee lii may bëgg a wax mu taxul ma di ko wax waaye képp kuy liggéey te liggéey ya looma sànk nga sab liggéey siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo mas nay bindiloo Sëriñ Mbàkke bu sa radiallahu taala anhu mu bind ca ilaa muridin saadixin sëriñ bi ko yaa ko seede wër na mel yi jëm ci tubaab bi i mel na ni bataaxel yi jëm ci tubaab yi la ëppoon lu mu koy bindiloo loolu mu koy laaj yaa ko seede daa bëgg lu muy wax mu wóor ko kon maslaha baax na baax na lool waaye mbooleem li ngay wax war naa dëggu ndax bu ci loolu amul bakkar bi day ëpp tuyaaba ji wallahu aalam sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na sariatu mooy yoonu mi ngi mel ni safinatu mooy ak gaal ci maxnaa ak tollooy xaraf ku ci dugg mucc na duggal ànd sa ñoñ siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo nee na xam yàlla mooy ajjana ju teew moo tax saa ni wali man xaafa maqaama rabbihi jannataani wér na ñu ñëw ci nettalim ñaar téeméer bi ak juróom ñaar fukk am na ku mas a sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtaaralowoo ci way yaa cheikhu kam zaara haasal baaba min malikin wa min wasirin wa min jinnin wa min malaki sëriñ bi ne ko wa min waliyin wa min na yu mel nii bu ko defee da koy jubloo xamal ni no nga loolu nga wax waaye mu jublu ci maslaha ak bégal ko wér na lool ci mbindi sëriñ bi muy wax ni malaaka ak ñi faatu woon ñépp dañu koy siyaar si wallahu alam sëriñ moor penda radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ tuuba xaada lawo lawo maxtaar lawo daa am lu ma bëgg woona ñaan sëriñ bi ni ko ba nga ko ñaanagul lañu la ko may ana lu mu mayees ne la sax lu ko ëpp mënu ko dama bëgg nga may ma ci sa daraja ka njëkk a jébbalu ci yow ba ka mucc bu ci kenn nammee dem sawara na ngay réyal sama yaram wi ba mu rëy ba mu fees dell sawara nga def ma ci te ñoom ñu dem àjjana sëriñ mi ni ko loolu ba nga ko ñaanagul lañu la ko may mayees na la sax lu ëpp loolu wér na mel na ni lu mel nii danañu ko waxal sëriñ daama abdourahman ba tey radiallahu taala anhu walaahu alam sëriñ tubaa xaadaloo walaahu maxtaar loo mas naawoo sëriñ abdourahman loo ak maam cheikh ibra faar radiallahu taala anhuma bañu ñu dikk mu daal di rëdd warale ni daa rëdd aw rëdd nii def lu mel ni nen ni def ñetti tomb ni maanaam ci biir ni abdurahman mu ni ko mbàkke mu ni ko yaa ngi nii mu ni ko mbàkke mu ni ko yaa ngi manit maa ngi nii pay bii ñu bokk nekk nun la fi boole fal waaye ki ñu fi boole fal damaa wax ni maa leen di jottali ci seen payug liggéey maanaam seen lu ngeen di am ci moom rek ci man lay jaare loolu mooy maxnaa bi waxtaan woowu wér kon Sëriñ Tuubaa xaadalewoo la maxtaar mooy buntub yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ni képp ku ci jaarewuli yàlla du la fay lu mel ni sëriñ bi waxoon ko sëriñ Malik Baasin Si radiyallahu taala anhu wallahu alam sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar la woon nee na Abdourahman moos bu saa boroom daganaloon boole doom yu jigéen ci bennub sëriñ kon lu ñu may tudd ci wàllu jigéen noonu laay def wér sëriñ bi day xamle dara jaam lu mel ni yonente bi salallahu taala alayhi wa sallama wa sahbihi ko ci sayduna Usmaan radiallahu taala anhu walaw alam sëriñ Kumba Ture radiallahu taala hanu, dani bis serigne touba khadalahu wala makhtar lo man de yalla beugaluma ko dara serigne mi ko bismillah gumma ngani lan mu ko yalla beugaluma ko dara serigne bi ni ko mba nga soko bëggalon dara yoralu la dara ba mu la binde ba nopi dala bindal mbolem limu la nara jox bolela la ko xamni dani la andala koka yore lu ma dara kat wér na loolu mooy man yuti rasula faqad ataa allah wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu ki yàlla booleel mooy doon sa bunt ci yàlla subhanahu wa taala lii la di jox lépp ci moom la koy jaare naka noonu yow ma xiyaam buy woote gis nanu ni njiit yi lay woo yow na don kulla unaasin bi imaamihim walaw alam sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo mas naa wax sëriñ du Xari Mbàkke radiallahu taala anhu ni ko fa ma nekk dama fa mënut nekk di wax ak yéen fii su ma bëggee wax ak yéen fii damay dikk ba fi yéen ma amu melowu ma mën a waxee ma wax ak ndax yéen doomu aadama mujj alayhi salaam mooy seen maam te aadama mu njëkk ba ñu koy tën tin mooy bind maa ko teewe siiw na ñu ñëw ci njàngaleem Sëriñ Tuuba ci ñaar téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom benn bi Sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu maxtaar lahoo nekkee njaareem Sëriñ Malik Basin si radiallahu taala anhu dara def bu nooree mu ànd ak ay taalibeem ñëw di liggéey ci kër sëriñ bi am bis ñu liggéey ba wàcc Sëriñ Malik ñëw di leen nuyooloo ak sëriñ bi bi mu noppee sëriñ bi tàngalel leen kafe ci loxo boppam bi mu noppee sëriñ Malik di jottali ku mu joxe doo naan da ngay téye bi ñu matee sëriñ bi ni bismillah fas leen ci lingeen bëgg te jariñoo ko sëriñ Malik ni ko nun kat danoo fas yaay ki mën a fas yaanuy fasal sëriñ bi ni leen fasal naa leen ci mbóot ak ngërëm ak barke wér am nañu Sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaar lawo woowoon di leen tàngalal kafe wala warga ba mu leen joxee kaas ya ni leen bala ngeen a naan kat na ngeen diglu ma defal leen ca pas pasub jariñu ku ci yorate ab kaas góox bu njëkk ba da ngay wax bismillahi maxfiratullahi ba ca tegu nga wax bismillahi rahmatullahi ba ca tegu nga wax bismillahi ridwanullahi lu ngeen ko gaaw a gaaw a teg fi suuf di leen ko wax wér na su ko defee fi ma sottee lii moom ridwanullahi la jiital waaye yaakaar naa ni nii ma ko tegalee moo gën a wér xafoorun rahimun ba tey fi ma sottee lii ñetti yépp bismillahi rahman rahim ngay wax loolu nag moo gën a mat waaye am na nettali yoo xam ni bismillahi rek lañu andi wallahu aalam soxna astu gaawaan radiallahu taala anhu sëriñ tuuba xaadala wala maxtaxloo nee na ko boo dee naan kafe loo ci pas dees na la ko defal wér na loolu yi murit yépp la li tax mooy am na waxtaan woo xam ni da koo matale waaye soxna si mu loolu ci boppam da ciy am ganeen jagle goo xam ni kaneen du ko am ngir barkeb waxi sëriñ bi radiallahu taala anhuma walahu alam am na ko mas a toog ci sëriñ bi ba mu yàgg mu ni auzu billahi min sheytaan rajim sëriñ Tuubaa xaadalaw laaw maxtaalaloon ni ko rajim moomu ngeen di muslu xam ngeen ko mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko des na ca kanam tuuti ku fi faatooti moo lay tàgge tàgge mooy yëgle siiw na xëy na rajo la bëgg a wax ah wala alam ñu ñëw ci nettalim ñaar téeméer bi ak juróom-ñett fukk Sëriñ Tuuba xaada lahoo maxtaar lahoo nee na mbindeef bu ñu bàyyi woon juróom-ñetti yëf jublu seen borom dañ leen wàcceel xéewal goo xami ñu ci mën a jaamu yàlla te dootuñu sonn juróom-ñetti yëf mooy xam yàlla te topp la ko jàng alxuraan te doo jëfe la muy digle bëgg rasulullahi salallahu taala alayhi wa alihi wa te doo jëfe sunnaam lekk xéewali sunu borom yi te doo ko sant mukk bëgg àjjana te doo def lu la fa yóbbu mukk ragal sawara te doo bàyyi lu lafa yóbbu mukk muslu seytaane ci kaw te ànd ak moom ci biir suul suul faatu te doo waaru mukk siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawu la maxtaaloo mas naa wax sëriñ Moor Penda radiyallaahu taala xanu sunu boroom may na seen àndandoo ji yent yëf yoo xam ni ku dul seen àndandoo ji mayu ko ko te doodu ko may kenn may na seen àndandoo ji waxtu ab jaam ñëwee ni ko dama laa bëgg a liggéeyal mu yóbbu ko fi bërëb di ko liggéeyloo mu nekk ca liggéey ba ba diggam ba ñëw te liggéey ba jeexul mu fekk fee dundub jaamu yàlla boo xam ni dundam ga defulu ca yàlla dara mu fob dundam da jox ko koo kee mu doon liggéeyloo liggéey ba ba mu jeex mu door a wàcc fob dee xam nga muy faatoom nga jox koo may na seen waaji it malaayika yi bindi jëfi jaami lépp lu ñu bindal waayam bala ñoo dem fakka leen ko doon bindloo jaar fi moom lu mu fekk ñu bind ko te neexu ko mu far ko bindi fa laneen may na seen waaji it saa su lëggaleew kenn ba mu wàcc foofu yi ñuy wax bar sàq mbooleem lu mu lëggeeyoon da koy fob denc ko fi bërëb dem di sàkk fa denc kaayu buur ba di ko jox ba ñu taxawal yowmal xiyaam mu boole koog ko lëggéeyal mu boole koog lam koy liggéeyaloon jox ko ko may na seen waa ji itam waxtu woo xam ni suñ boroom digal na yépp ni leen jug leen fii ngeen tëdd te jëm ca pénc ma mu yow ma yuppasoona képp koo xam ni waaye ma dalay def wagg wagg mooy boot dalay boot bu dër ci ginnaawam boot ca péel ca pénc ma Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar la nee na fi darul xuddoos dama julli suba ba noppi di génn dajeeg yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sabi wa sallama mu ni ma yow laa doon seet ma ni ko man mii yow laa doon seet mu ni ma maa ngi ma ni ko maa ngi mu ni ma dangaa manqué ñeen fukki at ak ñetti weer loolu nag jàpp naa dana ko war a ëpp xëy na kiy nettali moo fàtte lim weeri waaye mën naa la def xutbu samaan ngay xaw su samaan mu ni ko am soxla mu ni soxla mu ne ko bokk ci ñi ànd ak yow mu ni ma loolu kat faat na ndax ñi ànd ak man dañoo jaay seeni deret ak seeni alal te loolu wéy na ma ko loolu képp laa bëgg mu ne ma loolu am na ko daan wax waaye bu leen tegee yan bi day diis ba mën a wéy ma ne ko loolu laa bëgg mu ni ma ngay génn Tuubaa ndax ay du fi am ma ne ko foo defe ni bu ma fa demee ay wa fekk ma fa mu ma demal Jolof wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo nee na danaa nekk foo xam ni dootuleen ma gis waaye day mel ni ku ubbi am taax dugg ca biir ubbunti ya lu ngeen def ma gis ko lu ngeen wax ma dégg ko wér na loolu wax na ko itam ci yeneen nettali ci baneen nettali boo xam ni moo gën a jot bii xëy na muy benn walla ki koy nettali soppi ko wala wu Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na ñi ànd man ñeenti xaaj lañu ñii ñi ngi ci dëgg gu weex tàll ñii ñi ngi ci fen wu ñuul kukk ñii ñi ngi ci fen wu nëbbu ñii ñi ngi jaxase dëgg ak fen waaye ki teg xale dëgg fen ci sama ginnaaw lay ñëw mu ngi ñëw bu dikkee dana tàggale dëgg fen ñi may tuddoo te nanguwuñoo jébbulu ñi ngi ci fen wu ñuul kukk ñi nga xam ni dañu ni jébbalu nañu te nanguwuñoo ñëw wuyu si ñi ngi ci fen wu nëbb ñi nga xam ni dañoo jébbalu ba noppi yëkkati seen bopp bàyyi fii te nanguwuñoo wane ni ay taalibe lañu ñi ngi ci dëgg gu jaxasoo yaa ahla barri yaa ahla bahri on joli barri barri saqaay ñi nangoo jébbalu nangumaa topp ñi ngi ci dëgg gu weex tàll yaa ahla barri waa jéeri bu ngeen déggee jéeri mi jàng ci kaw gi te xamuñu la wax yaa ahla baxri yéen waa géej bu ngeen déggee géej gi woowuma waa géej gi ñi géeju la woo te mooy bëri xam-xam hoojoo mooy walbatiku leen li bari wuti baxri saqaayi mooy géeju tabe feeñ na lii leen di wax na ngeen ci jàpp na ngeen ragal yàlla te nekk ci ak njub te nekk benn lu ci waay am na ko bokk ak moroomam te ngeen gëm yàlla te xam ni yàlla mooy benn buur bu dul am ñaareel te képp ku ñu bind yonante bi moo la gën sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wasallama du samaroom dikk naa fii ngir xamu leen ni ngeen war a toppe yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wasallama ma bëgg yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ba nga xam ni moom rek la bëgg moom rek la yàlla bëgg ngir wan leen ni ñu ko war a toppe te mooy topp ko te doo ko booleeg dara wattu sa wattu sa moroom wér na su ko defee xam naa ci biir waxiin wi ni ki nettali dese na andi xaraf lépp waaye jublu gi ñëw na lool bu ñu xoolee itam li wax lépp bind na ko wala mu ñëw ci waneen waxtaan wallahu alam ñëw ci eh, njàngalem sëñ Tuba ci ñatt téeméer be juróom ñett fukk ak juróom maam cheikh ibrahima fall radiallahu taala anu mas tawat yabal ndaw ci sëriñ Tuba xaadalawo law maxtaar lawo ni ko boo demee nga wax ko ni sama yaram daa naqari sëriñ bi yabal ndaw mu ñëw ci cheikh ibra radiallahu taala anhu fekk ko mu tëdd bu mu agsee mu daal di jug ni ko lu mu la wax mu ni ko danima demal seeti ko daa tawat mu ni ko lu mu la jox mu ni ko dara loolu rek la ma wax cheikh ibra radiallahu taala anhu ni ko yéena ñàkk xam-xam jox na la saafara da koo def ci say bët bi ma xoolee laa wér fi dara metteetuma wér na lool sëriñ gàllaay say radiallahu taala anhu mas naa yónni ab taalibe ci sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ay ginaar bi mu la ko yónnee bi mu ñëwee ba ci xur wi ci njaareem te seeg sëriñ Moodu Awa Njaay radiallahu taala anhu mu ni ko ci suba ba léegi ñu ngi lay gatanu ñu ànd ñëw ci sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo mu ni ko ndawul gàllaay laa ngi mu daa mu daa di yëkkati ganaaree teg fi kanam sëriñ bi ni yenn yi nañu ko yët mbàkke bu sa radiallahu taanu yenn yi ñu wéyale ko ca wana wa ndaw la ni ko sëriñ gàllaay nee na woon ma wax la ni noppam day metti sëriñ tuubaa xaadaloo la maxtaaloo tibb suuf jox ko ndaw la nee na bi mu agsee ba sëriñ gàllaay sotti suuf sa ci nopp ba daa sedd wér na lool sëriñ Madloo Dagana radiyallahu taala anhu bi muy seeti sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo ci géej gi daa jaay ab jaamam ak li mu am mi jaral na ko mu faatu waaye fu mu nekk dana ko fa fekk bi fi sëriñ bi jóge fekkul woon mu jébbalu nee na muy dem ba ab yóbbalam jeex mu nekk fi barab ba amaat lu mu demee daal di jugaat waaye xaddiyee ji mu yore woon bi muy jugee kokki guy mi mi ngi mu yor bi mu agsee Gabon ku ñuy wax balees la fa fekk ci nit ku ñuul mu wax ko ni Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar lowoo laa bëgg a gis mu ni ko gis ko du yomb ndax tubaab yi yóbbu nañu ko te loor ko moo tax mu ni mu ni ko wan ma fu ñu ko yóbbu mu ni ko yoon wi boo ko toppee ba ca tund wële da ngay yéeg barastiku ca xurwa da nga gis fa ñu ko yóbbu nee na bi mu agsee dafa fekk ñu faatu ñu bari mu gis Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lowoo mu toog ci ak garab gu mag booba mi ngi ngelaw ngelaw lu tàng bi mu agsee ba sotti xaalis bi fi kanamam mu ni ma jox ma a bant ma jox ko ab bant mu génn xaalis bi mu jaaye woon jàmba ni ma Mamadu lii lu ko boole ak lii mu ne ko daa am sama jaam bu ma jaayoon boole ko li ma doon indi ngir xeeb ko Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo ni ko mëmadu lu la mayib jaam mi ma defe woon ni ab jaam nga ab jaam nu muy ameeb jaam Mamadou Moos yéen ñaar ñii ana ku ci gën a gore di ki yàlla may doole mu waaxu dem ci moroomum goram di leen finnaal di jàpp di jaay ni kuy jaay bàyyi ma ak ki yàlla dénk wërsëg ñuy finnaan moroomus goram dimbalewu ko ca di ko jëndanteeg moroomam ni kuy jëndi bàyyi ma kii taxaw gënu leen ko ndey gënu leen ko bàyyi ki taxaw jaam lay wax kii di la ko jaay nga di ko jënd ni ko jëlewoo ko ci fitnaam ji dem di ko ko yokkal maam jëlewoo ko ci naqar wi waaye danga nga ko yokkal yéen ñépp ngeen di jaami yàlla bu leen ko defati neel mott mooy gaaw te fob xaalis bi boo demee na nga ko delloo kala ko joxoon te fob doomi jàmbur ji jébbal ko borom loxo moom moo wax lool nee bi defaral na ko foofee warga ci loxo boppam nee gis na mu génne doju mbéy taal gis na fa it ak mu mooy weñ gi ñuy samp di ci wékk satala gi naar yi ñoo ci tàngale attaaya te bi muy ak si gisu ko fa nee gis na ko fa te bi muy doog ak si gisu ko woon foofu sëriñ bi nekk sëriñ tuuba xaada la law maxtaara la ni ko mamadu lu la andi fii mu ni ko fas la yéenee gis mbaama dox ba dee sëriñ mi ni tàggu woon nga Cheikh Anta bi ngay ñëw mu ni ko déet sëriñ bi ni ko koo tàggu ci fere yi mu ni ko kenn dama toog ba xam ni mënuma daa ñàkk a gis rek ma jug ni damay dox ba gis la mbaa ma dee sëriñ bi ni ko boo demee nga nuyul ma Cheikh Anta radiyallahu taala anhu nee ko gis nga ma fa Gabon mbaa di nga ko ko wax mu ni ko ko waaw nee na toog na fa ba tàkkusaan mu gis ñooñee deewoon dekki jug di daw sëriñ bi ni ko diggali walaf di léebe nee na loo def ba dee boo dekkee ba ko xoolal ña ngay daw man kat la ñuy daw mu ni ko lii de mbàkke yaa ko man rey dekkal lii de bu ko Moussa alayhisalaam manoon kero ba mu labalee firaw na dekkal ko rey dekkal yaa ko man yow dongu ña ngay daw di sëriñ bi ni ko walaf nee na loo def dee boo dekkee bàyyi ko loolee kat dëgg la wér na yal nañu sunu borom dimbulee ci lëggeel Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaloo ca na mu ko bëggee ci lu dul benn nax na te musal ñu ci barkeem te may nu tawfiix lu sax amin ya rabbal